tey dañ fi ñëwoon ci ministère de l'urbanisme seet seet ci monsieur le ministre Abdou Karim Fofana Ablaye Gaye daf ñu xamal ne ministre bi dafa dem démb ci guddi France moom moo ñu recevoir mais xamal nañu ne comme ni ko sëriñ bi waxee moom nangu na ko balaa la trente dixième mois liggéey bi dañ koy tàmbali te ñoom dinañ ko jëmmal ci ay kayit ñoom état bi dinañ ñu accompagner dinañ ànd ak ñun képp kuñ fa joxoon lu ñu naan boo dinañ ko teggi annulé ko delloo Malika suufam te ñun looloo ñu taxoon a ñëw borom tool itam dinañ leen delloo seen suuf ba pare semaine bii di ñëw dinañ dajeek mairie bu Malika suñu maire notamment Talla Gadiaga woo équipe bi nga xamante ne ñun ñooy ñun ñooy ak ñoom ñu waxtaan borom tool yi ñu delloo leen seen suuf defal leen ko ay boo ñoom nee nañ loolu dinañ ko def parce que mbooloo bi kenn du ko jël di ko sacrifier ci benn nit nangu nañ ñu njuumte amoon na fa njuumte loolu dinañ ko dindi. dañ fa joxe woon ay booy ay boo depuis 2014 dafa am ñu ñu fa woon ay boo ñoom dañ ne forêt classée la te forêt classée bi Malika moo ko jiitu Malika mu ngi fa nekk depuis 1914 waaw ci ndigalu Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam ñoom nag tey li ñu leen wax mooy que ñoom état bu Sénégal dañu am lu ñu war a delloo Malika ndax Mbëbës mu ngi occupé 114 hectares te loolu sunu moomeel la kon ñun Mbëbës bu occupé 114 hectares Kër Massar fi mu indoon ne nii ndox mi biir Malika lañ koy sotti ñu ngi koy sotti ci lak Mbëbës loolu moo yàq tool yi borom tool yooyu ñoo séddee seen i tool depuis boobu ba léegi ñi ñu ko séddee mënuñu tabax saa ñu commencé teg mool Descos ñëw toj ko Descos ay complice lañ parce que dañoo ànd ak ay promoteurs yoo xamante ne dañ leen fa jox ay boo ñu ñëwoon fi tey pour ministre bi ñu jàkkaarloog moom parce que ñun dañoo sonn ci ay sous préfet ay préfet ay gouverneur ñi ngi wax président ñu ngi fi teg defu luñ la li nga bëgg président de la république son excellence ñi nga fi teg defu luñ la li li nga bëgg waaw gis nañ nag directeur de ministre bi wax nañu lu ñu doy jeune la comme ñun le 31 wala le 30 Inshallah les travaux octobre bi di 10 dixième mois mané ne ma le trente les travaux ils vont commencer ñi doon tabax seeni tabax nañu continuer seen tabax nañ ko tabax inshallah allah bu soobee nangul namako té ko naka ci wax ak président inshallah nangul nañ ko accepter nañ ko kon dixième mois bi fin du mois ak jallu ba ga lép mbatal yen doog lépp incha allah bu soobee yàlla les travaux yëpp dina commencé waat comme na Malika nekk woon démb incha allah lépp delluwaat ci jàmm sinon bu amul nag loola nag naa ko lijjanti ak ñoom bu soobee yàlla